sëriñ Moustapha mii ma tuddee sëriñ Moustapha bu sëriñ Babacar Si te mu di seen patron ñu ngi koy waxtaane mat na léegi juróomi fan mu ni ma man li ma jaaxal ñun Tiwaawan la ñu yaroo ba màggee fa te xamuñu woon lay xaqiqa bi ñuy ñëwee ci yow la ñuy soog a xam xaqiqa ma ni ko parce que xaqiqa ba maa ko indaaleen Ndakaaru moo tax lée léeg mu ni ma góor gi ma ni ko mu ni ma bun la xamul woon ndeke alku